mu yóbbaale njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp bu ma nuyoo sama mag sama lépp toog ci sama ndeyjoor di professeur Mouhamadul Mounir si maa ngi koy tooñ léegi di boroom xam-xam bu wér ñuy jaruñu ci moom lu bari toog ci sunu ndeyjoor bu ñu ko nuyoo yóbbaale na képp kuy gan bu ñu nuyoo chef de ci bi doon wax léegi mu yóbbaale képp kuy jur bu ñu nuyoo sunu jur bu jigéen muy soxna Zeynabu mu yóbbaale képp kuy jigéen ak soxna Lalla bu ñu nuyoo sama jarbaati bopp yi sama xariti bopp yi sëriñ Babacar sëriñ Mama Madine eh, mu yóbbaale ñëpp waaye nag tey moom damaa xaw a tiit tuuti ndax jataay boo xam ne ay imaam rek la wër te ku ne xam na ni imaam moom baaxoo na am xam-xam moom waaye nag ñu ngi leen di nuyu ñoom imaam yi jiital leen bu yonent bi ñëwoon fii ci senegaal ñëw ci koñ këru imaam ba lay laaj buy dalit fa lay dal nag kon yàlla yàlla yàggal seen kanam nuyu ñi doon burdu ak woykat yi nuyu sunu jarbaat sunu rek xaaj mu yor mi ngi nuy saar Habib Sarr di rakk ci sëñ ak sama jigéen ñu bopp yi kii ñu fi tax a daje nekk Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa seen maam Seydi Hadji Malick daf ñoo noppal dix-huit mille awalim la yàlla bind inna al awalima aaliha wa safilaha ashiatun yooyu yëpp dix-huit mille yëpp talaat min afdali nusul ci sayyidna mohammed lañu déclencher ñom ñom yépp tay jotaay bi ku fi tok tay yàlla sayyidna mohammed tax wa maa xalaqa arrahmaanu shay'an li nafsihi siwa Seydil Mahmoudi wa huwa habibun wa awjada baaxil xalq am na lu ñu tuddee aalamul aala mooy aalamul baqaay am na lu ñu moy aalamul fanaay am na lu ñu tuddee aalamu taamir mooy aalamul wal fanaay am na lu ñu tuddee aalamul unsi am na lu ñu ala alxaqiqatul muhammadiya am na lu ñu tuddee aalamul istihaalati mooy kurratul athiri looloo tax Seydi Hadj malik jël kotu xilaas koroche ko ci kotu ikhlas pour mu mën a génne aalamul naasuut aalamul malakut aalamul jabarut aalamul haahut fatiha ko tuddee sabaul boo demee ci ruuxul bayaan daa bari waaye boroom iraatul arais daf caa tànn ni juróom ñaari maqaama yi nga xam ni la yàlla di doxale lépp te mooy maqaama xayaat ilm iraada qudra sama basar kalam mu ni boo gisee ñuy wax sab'ul masaani juróom-ñaari code yi ci lañ ko wékk yi ci def ñu soo ko nëbb jox ko nit ñi moo tax Seydi Haaj Maalik mi mën a jàng boo gisee alhamdulillahi sil ijaadi wal xidami mu mu dinaa bu wujud badri dem ba ca biir mu ne maa ar adal raadu wala war xaw tanxibu min hadiliha wa jaraa damon boo xoolee juróom-ñaar yooyu benn bu ci nekk ci benn maqaama lañ ko roof kon hayat mo delu fan mo delu ci ijab bu am am amuloon dundu do am ya, ilmu mo delu fan ci jara dama on ala qalami big bi rangooñ ba tay genn motax ma nettali won ni feuille blanche dañ ko ni ko ni nga wexé ak ni nga rafete won ngay xolé ba daa di la takal mu ne bay ñuul ni mu du man daa la ñu songu da daani ni du man khalima ma togn ñu songu khalima khalima du man loxo ma togn ñu songu loxo loxo ni du man xelama tooñ ñu song xel bant mu ni bant bañ ko songee moom xalima dafa ni du man de maa ngi woon ca barax ga waaye loxo ma tooñ moo fa fekk yatt ma gis nga ni mu def sama gémmiñ gi ak ni ko sewelee ñu song loxo loxo ni xola ma ndax moo ma yebal ci fële ñu song xol xel ni xela ma tooñ ñu song xel xel ni xam-xama ma tooñ ñu song xam-xam xam ni binda ma tooñ allah maa ni maa jaraa demoon ala xale iraada di namm nam yàlla moo tax wa innahu is araada foofu la génne xudura moo génne ci xidam samo la ñuy dégg moo dellu ci maa araada raadu basar moo dellu ci nuur mooy abaana mi nuur yi kalaam moo dellu ci wal war xebu min moo da jox ñu nag occasion wu ñu teral seydina muhammad sallallahu alayhi wa ni lay la la arubati ni yow ma la arubati bii di jàlla bii di xalla lay la la arubati xalla durru yow ma la arubati jàllal badru badru ak durru ñaari xarafa leen tàqale muy deux parce que bii deux cent quatre la bii deux cent six la deux googu mooy baa bi ñu denc te muy secret lu ne bokk ci xuruf zulmaani yi araf yu lëndëm yi ñu dugal ko ci biir faatixatul kitaab moom dong lañ ci intégré ci xaruf zulmaani yi yëpp waaye yàlla day ahad di un yonent bi di isnay ni di deux deuxième boobu nag moo war a saari alxuraan yëpp baala tàmbalee bismillahi rahmaani rahim teppaari ci bismillahi rahmaani rahim waaye boo xoolee baraatu min allahi donte amul sax bismillahi rahmaani rahim baala ko yàlla tàmbalee سيدي شيخنا ني با غوغو ما نقطه التوحيد قبل في عشها ما بسطه الخط المديد الثاني ووريت بتوريت كلمه ووريت بمكامل الانجيل للرهبان مني با اون بالا نك يالا دنكو بغ بغ تاسيرو مو دوخ وبي سيدي حول دخل دول مشيد بنيا موتاخ با نيادا دني ني دلا ديدي مام خليفه نين اوبنا دو ndax amna adul jumlati amna adadu tafsil amna qudratuhu fi batni al ulwi ak qudratuhu fi batni sufli fokk nga bolé kaat yépp soga am ba ñaata la motax tax yonent bi dafa déparé ci biti baagi ni bismillahir rahmanir rahim téré ja ca samena wa atana iblis déparé bi ci biti baagi ni bi azzatika la aghwiyannahum téré ca samena wa asayna samena wa atana ghufranaka samena wa asayna fa ushriba fi xulubihim al ajl ay hubul ajl moo tax sëñ Muniru démb damay nettali benn sàcc waaye eggul ndax ñama dafa guddi ma leen déwén laa koy eggale waaye nag jàmmalaay moom intégral laa leen koy jox wa amun summa shahrun summa yawmun moom laay firi tey ñu tëj Muniru sëñ Muniru sàcc ba day professionnel waaye xale la waaw dafay professionnel moo tax si haaj maa sëñ Babacar ne ne inna tawadduda bis bi zaimi taraddudun fardut ala wuddi mir in mutamalliq bëgg-bëgg lu Seydi Haaj Maalik baaxul looy def rek na nga ci nekk professionnel mbaa nga bàyyi muy dox dajeeg benn paa ndeke moom it sàcc la waaw paa bi sàcc la moom it ni ko bàyyi looy liggéey mu ne ko sàcc mu ne ko doom yooyu looy liggéey mu ne ko sàcc mu ne ko doom man nga maa woon sa talent ci mën a sàcc mu ne ko bàyyi yaa ma ci jiitu ko yow koy woon ma sa talent ci mën a sàcc ba pare góor gi ni ko gis nga petax mee ci kaw mu ne ah mu ne ko dinaa ko yoot ba sàcc geen gi te du gi ci xelam ak tiktagam yuutu petax mi ba dee ci geen gi bi muy dagg geen gi ndekk booba xale bi simmi na tubayu góor gi def ci poosam mu ne ko doom nag yaa ma mën nag ñu ne tey fu ñuy sàcc ji tey kii ne ko nañ dem ci kër diw mu ne ko ñooñu amuñu doole nañ dem kër buur comme ay professionnel lañ moom nañ dem kër buur rek rëbb ca coow la moo tax waaja ba muy sàcc mu niir ci kaafu jàmbur fekk fa ñett cuuj jël leen ndeke yoroon na quinze mille quinze mille yaa waddu fa muy topp tànk yi ba ci kaaf gi nag ndeke boroom kaaf gi for na ñetti junni yi mu fëgg ko ba mu génn mu ne ko cu junni moom duma ko mën moom <laughs> day seer ak cu junni moom waa ñu ne ko mën nag jaay di xàcc dama koo bàyyi fi toll ñu daal di sopp sàcc nga xàcc jënd nag jaay ñu gis faay ci kër buur mu niir xaaj mu niir muy benn ndax kuy jël rek yàlla da koy may pexe moo tax ko amul xel mënu ko mu ni benn faay fi nekk te garde yi seen xel lu ci dem nañ duggee foofu bañ duggee dajalee xaalisu magasin bi mag mi ne ko comme yaay xale yaay njëkk a dugg mu ne ko déet duggal baay mu ne ko ne duggal tey bu subaa ma dugg ñu dajale lañ fa am ci mbuusu xaalis waaye saako yu mag yi dafa ne ko lii suba lañ ko mën a jël si ñu préparé ko ñu jël yooyu dem buur bi xëy rek woo garde yi ak xel mi ne leen am na fi dugg mais ñii ay professionnel lañ bëgg naa suba ñu jàpp leen ñu ne nañ def benn plan fiir jël bëri ko def ci iwil waaye buñ ci defee lem bu la jàppee doo rëcc iwil kese mën ngaa génn waaye buñ ko booleeg lu saf suukar dootoo dem góor gi do xale bi ne ko yaa duggoon démb tey yaay dugg maa duggoon démb tey yaay dugg naka la góor gi dugg ci bërigo bi la wàcc garde yi xëy war a daw def alert ñu ba sirène bi xale bi ni ko bu ñu fekkee bu ñu la jàppee jàppale ma parce que xam ñu ñooy ànd jël ci dagg bopp góor gi def ci saako yóbbu garde yi ñëw ni buur bi jàpp nañ sàcc bi mais sàcc bu amul bopp lañ jàpp sàcc bi daal amul bopp buur bi ni leen. bu ma xëyee suba xam nga nu ngeen def jël leen sàcc bi ngeen yóbbu ko ca marché ba donte amul bopp dana am ku ko romb jooy ka ko romb jooy bu ngeen ko toppee këram kër googa foofa la sàcc ya dëkk ngeen vigilant nag ñu def alerte bi waaye professionnel bi xam na ni loolu plan la mu di xale ndaw dem na ndaw si sa jëkkër kat ñoo àndoon waaye bu ñu ko jàppee jàpp ma mu ni ndaw si ni ko man mënumaa bañ a jooy sama jëkkër mu ni ko kon dangay root si woo ndox nga romb ci néew bi naa la fa tegal xeer boo fakka saloo rek na ndox mi tuuru sa kaw nga jooy sa la ngay profitoo jooy ñu defee ne ndox mee tax ngay jooy buuru yebal ay garde ñu taxaw ndaw si romb fakka salu rek ndox mi siwo bi tuuru ci kawam muy jooy garde yi ñëw mun leen amul ku fa ñëw di jooy ñu ni ko déedéet benn jigéen daal la fa romboon doon root ndox ba ndox ma tuuroo ci kawam muy jooy mu ni yéen a dof borom ndox moomu moo doon jabar si jàpp garde yi rendi leen ni nañ ma jëlal koor bi ñu yóbbul ma ko ci rond point yi ku ngeen gis mu ñëw guddi di ko tiim rek xam leen kooka la bi jël dem xam na ni góor gi amoon na mbaam mu miin kër ga mu jàpp mbaam jënd ay dibe ma coca cola fekk garde yi fa ñu làqatu di surveiller mu ñëw ci ñoom ni leen man de dama bëgg tukk waaye xam naa ne su ma fanaanee daañ sàcc sama mbaam mi ñu ko kaay ci biir ñu lekkandoo naan nga tëdd nelaw mu ne bu ma nelawee ngeen sàcc sa mbaam ñu ko yeewit ay gaar nga naan sàcc mbaam mu lekkandoo ak ñoom ba gaañu suur trois heures du matin ñu xaw a nelaw mu yanu koor bi acca mbaam ma dàq mbaam mi mbaam mi jubali kër jabar ñëw fëgg ndaw si tij ñi day sànni yenn jëkkër ji teg ci kaw lal bi jooy ba dool yëkkati lal bi gas jëkkër ji suur waa ji yow ne yenn a sàcc sama mbaam buur bi laa leen di booleel ñu ne ko ñun waxuñu boolee buur bi nag ndax dañuy rey waaye bi ñu sàcc ñun mooy suñu problème loo jëndee won mbam mi mu ne len cinquante mille ñu dajale ba jox ko cinquante mil bur bi xeyni ana mbam ana koor bi ñu ne ko dañ ko sacc ñun kenn jaaru fo lul dul benn borom mbam mu ne len borom mbam mom la japp ñoo ña wo woo ñeneen ni len suba nak len mu ko yobul fi ci golf waye nak da ngeen di lal xaaliss ci yoon wi ku ngeen gis mu seug for rek xamal ni ku demb ka parce que xamna ni koor bi dañ ko déplacer professionnel bi dégg ko wut ay dàll bot jël ay kol kolu janax def ci suufu tànk yi ndax ku sëgg la leen wax waaye bu rombee waaxu rek di wëlis moom ndeke xaalis baa ngi jàppale soo demee ba jàdd rek daal di gas kamb te teppi xaalis yëpp gas rombaat wëlisaat buur bi woo leen ana waa ji ñu ne ko ah tey de moom kenn jaaru fa moom kenn sëggul for xanaa benn waaye bu doon wëlis di romb rek <laughs> mu ni yéen a dof xaalis bi kat quatre cent la woon léegi borom dàll yo kooku mooy sàcc bi jàpp ñoo ñu tëral rend leen maa ngi ñëw ci guddi de woo conseil yi ni gu mus kewul rek mo mën borom borom sàcc ndax kéwal gi moom ñëpp bàkke nañ ko ko te dañ koy mu kewul. ne kon na dem waa ji yeewu fajar 5 heures seen kéwal gi ci bunt bi mu xam ne dégg na histoire kéwal gi mu nax kéwal ko ba jàpp moom professionnel bi ren di kéwal gi jël yàpp yu def ci frigoom jël der ba yóbbu sànni ñu xëy suba ko waa ji ne ana kéwal ga ñëw na ñu ne ko dellu de mu ne kon kéwal ga ku ne xam ne dee na ñu ne dee na kay ndax daawul fan àll mu jàpp ñu ko waxoon yow tër ren benn màggal ñëw ni ko waa buur man bu ma fexe ba sa sàcc feeñ moom noo ñuy def loo may jox mu ne ko loo bëgg ci àdduna mu ne ko maa ngi ñëw màggat mi kaalaw di dox dox lu ba ca kër mu gën a sib sone mu ñëw man day doom dama am feebar boo xam ne docteur yëpp ne ma yàpp kéwél a koy faj te xam naa damay de te nee nañ ma ñaari semaine dama dese ndaw su ne ko déedéet yaay booy man am naa tuuti yàpp kéwél xaaral ma daggal la ci jox la mu daggal ko ci yàpp kéwél bi maire bu kontaan di dem dajeek professionnel bi fii ci yoon bi mu ne ko mu ne bu yàpp kewal di faj ma doon ko wuti ñu may ma ci tuuti mu ne ko lii dafa ndaw kaay ma may la ñaari kilo nga yóbbaale say mbokk yóbbu meer bi rendi ko wékkatal ko xam naa li ci des moom déwén lañ koy eggale ndax ñu moo tax tiwaawunukum haasi وحسن جلاف مام أبي مام مام ماسور موي وخ تياونكم هذه محل استقامة تفي تياون لنا تياون لن يود نختاو شيخ سيدي حاج مالك موي مام سيدي أحمد سي جو سوخنا سفير دوسي مو جو جو سي علي كون بو في سيدي شيخ سيدي مالك فيك كون نك الا مثل من قبلكم مروا دا فا ملني غاي نك ساتي بي لا waaw kon ñu yeggale ko bokk buur bi ni léegi waa ji non non toppatuma ko ndax xam naa ni kii lenn dong laa bëgg def ko goro fexe leen ba mu ñëw ma may ko sama doom bu jigéen ndax professionnel moom danga koy may sa doom mu di la dimbale ca xel ak xalaat ñun nag def annonce waaj a ñëw guddi ni ko man mii may waaj buur ne ko nag li ma wax gor gor ca waxat sama doom laa la bëgg a may mu may ko doomam bu jigéen yeneen buur yi di ko bind lettre am buur bu ko bind lettre di ko xas naan ko amoo koy may sa doom loolu ab sàcc buur bi di misère loolu ba mu am ñaari weer ba mu jigu mu jeex goro bi ñëw moom sàcc bi ni ko aw yow sa jeexaay du neen mu ko dafa am kàddu yoo xam ne mënatuma koo muñ sàngam toujours mi ngi may bind lettre mu ne ko may ma tuuti dinaa ko régler vingt-quatre rek laa la ñaan dem ca uude ba ñawloo ko yére bukki bàyyi ba guddi mu sol dàll càkkaaba xam nga day njool yor jaas ñëw ca kër buur booba koy saboot ni garde yi malakul mawtay ñëw nag ñaara am ngeen tijj ma dugg mbaama rey leen dugg fekk jëkkër jabar jeeg buur beeg jabar ji mu ne leen nag avertissement la ndax dee warta bett suba dinaa la jël si lenn leen mën a tax a muccal nag seen dee bañ a metti wut ñaari keesi jaat ngeen def yaram neen dugg ci ñu delloo ko tej ko ngeen baña a yëg dee leen di yóbbu àjjana ngeen di xuppe ji jël seen fit ñu nang def yaram neen mu ni bur bële nak organiser tan béer wol sa xaritu bur yep ñu ñew tok ñepp tok mu ñëw indi caisse yi yi ñu tek ko ci ay sarret baye ba nit ñi fecc ba mu tang rek mu ni mu fëgg caisse ni leen bu neewonal bu ma fëggee génn leen ñu génn ak seen yaramu neen buur bale ni ko dégg ma waxati may doomi sàcc mu ne ko déedéet loolu mu tey lay dakk moom faamun summa yawmun summa shahrun ata fihi lhuda xarnu xuruni sururun fii sururin fii sururin mawdu ni rabiun wastina fihi shahrun bi aamil fii li yowman baada nooni سم موجد إلهي يا إلهي xaaj Maalik ni ban at la mu ne amul fiili mu ni sururun keroog mbégteel summa shahrun kañ la rabiul awal mu ni fii sururin wa yawmun kañ la mu ni wasina altine mu ni fii sururin yëg nga ni bu ñu demee àllaaxira bi su samedi la ñu maam aadama di invité ca àjj ca lay doon mooy invitation aadama dimanche ca la yàlla nu wax de invité waaye ci jannatu naam la ñuy invité nag altine ibrahima ay invité ci jannatul firdawsi talaata Moussa ay invité ci jannatul ma'wa àllarba Aysa ay invité ci jannatul adni alxamis nag Seydina Muhammad mooy invité ci daarul xaraari nag waaye xam nga kuy invité àjjuma yàlla moo tax ñu ci def xadra jumaa naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah la ilaha illa allah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 nga soog a nag indi séexa benn bi allah allah allah allah fexe ñu wàcceel la ci soxol six cent mille waaridaat moo tax ñu koy jël ci heure xadratu jumaa ba moom allah jooju moo tax Seydina Muhammad ne am na waxtu woo xam ne ci bisu àjjuma lu ca ñaan yàlla mu nangu daal ni nag ida marartum bi riyaadil jannati fartau fa qiila yaa rasuula ma riyaadul jannati xaala mu ne xelaqu zikri bë bërëb yooyu ñuy wéet dajale fa di fa tudd yàlla mooy jardin àjjana bu ngeen ci eggatee dee leen dab ci xaw ya yëg nga ni li tax faatix li maa uxliqa am doole nekk da ko wutal caabi miftaaxu salaat at tahaara caabi julli mooy laab miftaaxul xajj al ihraam miftaaxul birri as sadaqa miftaaxul janna tawxiid miftaaxul ilmi xusnu suaal miftaaxul nasri sabru miftaaxul mazid shukru nis wilaaya mahabba ba mu yëpp yegg alaaj maa ngi ne yaa man yuridu jinaanal xuldi yaskunuha faqat di man talabal miftaaxi tuxtana mi xam nga caabe ajana ñaata la juróom ñetti caabi la moo tax professeur ne ma nag lan mooy miftaax ak luy taxaara maa ngi yow dégg nañu arab di waaw ñële nag mu ni caabi julli mooy laab yonte bi nee laa salaata li man laa taxaarata lahu keroog bi Xusayfatul Yamaan yi ne Seydina Omar am naa lu yàlla amul xam naa lu yàlla xamul mën naa lu yàlla mënul ni ko damaa Omar damaa bëgg damaa bañ dëgg dama bëgg fitna damay jullitu duma jàpp kero Omar yi daf ni koy rey ko yii nga wax ku ko wax rey la jaatun di waaxu di wër Xuzayfa dajeeg seen mu ni ko Xuzayfa laay wër yii wax ku ko wax war na nee na xam na lu yàlla xamul am na lu yàlla amul mën na lu yàlla mënul day julli te jàpp daa bëgg fitna mu ni ko pourtant wax na dëgg day seet lu ko wóoru lit mu ne ko xanaa da ngay bëgg a dof yow mu ne ko lu wax nee na am na lu yàlla amul mu ne wax na dëgg am na ndey ak baay am na mag ak rakk te yàlla amul ndey amul baay amul mag amul rakk mu ne waaye xam na lu yàlla xamul mu ne waaw moom xam na ki ko bind xam na ni yàllaa ko bind waaye yàlla kenn xamul ko ko bind mu ni dafa bañ dëgg mu ne ko wax na dëgg bañ na dee yonent bi nee na almawtu xaq dee dëgg la na bañ na dee kon kay bañ na dëgg nee na daa bëgg fitna te yonent bi nee na al fitnatu naayima fitnaa ngi nelaw yàlla rëbb ko ko yee mu ne ko waaw moom bëgg na yàlla ne innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna seen alal ak seen doom fitna la bëgg na alal bëgg na doom kon bëgg na fitna mu ne ko waaye nee nag nee na nag xam na lu yàlla xamul mu ne waaye xam ne ki ko bind mu waaye nee na mën na lu yàlla mënul nag mu ne wax na dëgg xew-xew mën naa am fii jàmbalaay mu wuute ko bañ koo fekk te yàlla mën te wuute lu xew moom dana ko fekk mu ne ko àllin boo gaawuloon wax musiba dana am yonte nee na ana madinatul almi wa àllin baabuha ana madinatul hayaai wa osman baabuha ana madinatul hay eh, eh, saxaay wa abubakrin baabuha ni ana marinatu shujaai wa omaru baabuha Seydina Ali mooy buntu xam-xam ñaari jigéen am doom ci néeg kii jur góor kii jur jigéen ku ne di xëccoo yaa jur ku góor gi ñu ni nan lañ leen di àttee àll ni ñëw ni kenn ku ne na jël weenam def ci meew jox ma ñu jox ku nekk meew ci kopp mu teg ko ci balance bii ëpp doole mu ni ku moom meew mu borom doole ñu ne koy mu ni kii moo jur ko góor ki ndax yàlla nee na ci miraas li dakkari mislu xasil ni góor ñaar jigéen benn ci miraas ni góor ëppalee noonu la meewum góor di gën a diisee meewum jigéen yow mi yaa moom doom ju góor mm. am benn jigéen bu nekk hermaphrodite mooy ko am ñaari awra bu góor ak bu jigéen wala boog ñu kii ko mu kiyewaat la waa ji defoon daa sàcc ñu sàccaat ko mu ne ko kii li ma kii woon fii fii loo fi kii ñu kiiwaat ko ma ne ko wax dëgg yàlla de <laughs> moo gën a sedd ndaw sa ñëw ci jëkkëj ni ko nijaay yënga ne mbindaan mee dafa ëmb mu ne waaw kooku de affaire am la pourtant nee na yaa ko ëmbal de mu ne ko kooku sama affaire la mu ne ko yënga gi du ma fi toog mu ne ko kooku sa affaire ñu ko léegi àllin kii góor lañ koy jàppe wala jigéen mu ne compté leen faar yi faaru góor day tóol ndax ca lañ bindee maam awa faaru jigéen day mat bu faar yi matee ngeen xam ne jigéen la ngeen caw ko bu faar yi ngeen xam ne góor ngeen din sëy moo tax jigéen di muuruti góor du muuru boo demee ci laaj ya samaw il laajoon Seydina Muhammad muy junni laaj ak téeméer ak fukk ak benn gars yi dajale ko ni ko posé ko Seydina Muhammad bu tontoo yëpp moo demee ci téer bu ñu tuddee xaridatul ajaib dana la indi question yëpp benn bu ci nekk ak sa réponse mu ni la faaru jigéen làqatu woon ca biir ñu nëbb ko lool ndax ñu bëgg jigéen jën nëbbe ca lu làq moom muy muuru di di làq boppam moo tax jigéen dafa sàkkre jigéen ku yàlla bàyyi xel la yonte bi muy génn àdduna dafa ni maa ngi leen di dénk ñaar jigéen ñi nangeen leen bàyyi xel maa ngi leen dénk julli inna salaata bul way wa mamluukun la aaxiru maa awsaa bihil Mustafa fi xaati alal yonte bi nee góor goo gis teralul jigéen yërëmul jigéen nee na baadoola la sa jig sa soxna même bu nekkee en état war ngay jënd ay fruits di ko jox ak i banaana gis nga xale yi xale yi ndaw yi rafet yëpp mooy ñi nga xam ne bi seen yaay ëmbee dañ daan lekk ay fruits ak di def lekk lu neex ay poire ak yooyu. professeur ak ñom raisin. wa ndax bu xol ba seddee sidit ya nangu mhm. bu sidit ya nangoo boo gisee téere yi la doom ñett la domi digulal domi tatu saket domi tatu per lolo tax domu digulal ñu ni sa borom ko dalay soxla tek la loxo nga nangu ngeen and bu ca dom juddo dana am barke su sonnee dina am bu sonnul dina am doomu bopp lal day lànk di bëre ba ca bopp lal ba mu soog a nangu su góorgóorloo dina am bu góorgóorluwul du am dara doomu taat sàkka nag day bañ ca kaw lal ba muy bañ ca bopp lal ba ba ànd daanu ca suuf sa sàkka doo mu soog a nangu mu ne kuy sonn ci àdduna lay doon te boo defu ndànk yanu rek lay liggéey nag waxuma leen ku ngeen gis mu yenu na ngeen naan doom te at sàkkat Sénégal gën a ñëwee yàlla ak seen tiktok yu bees yi moom ah de loolu liggéey la nit dana am liggéey méccam boppam waaye nag loola lañ ci jul mooy bu fekkee ne sa way jur bu góor amul ngërëm ci sa waaj mën na laa indi coonoy àdduna ba loo song mu jafe la moo tax yonte bi nee na jigéen bu xàññee borom kër boppam te ngànt amul malaake daañ ko fanaane rëbb ba suba jot moo tax yonte bi nee na dee leen leen neexal nag waaw waaja ba ko jabar ji sonale mu koy boole Seydina Omar daañu fekk Seydina Omar jabar ji poñe ko mu ne man jarul may egg man maa ngi wut xeetal ndeke Omar mi ma jëm moom ëpp problème <laughs> moo tax bu la yàlla booleeg soxna da nga koy téye waaw lu ma xaaja mu niroo wax léegi di mere mere jab naa ko boo jéggee siwo bi mooy sa fase jaba ja riir wuti siwo ba mu ak li ngay sawar lépp <laughs> ah, tax abgadul xalaali àndallah attalaax li yàlla gën a bañ fase ja la bokk moo tax nag yàlla dénk foofu jigéen ñi dañ leen war dimbali jàppale leen te sëyu Sénégal nag sëy bu metti la nag waaw loolu moom ñépp ko xam da boole souffrance métit ak coono te dañ naan la muñal rek waaw ah, loolu nag dina daan na jur jàmbaar daan na jur gaynde waaye nag eh, eh, ku bàyyi baayam bàyyi yaayam dogi nijaayam jël sant baayam bàyyi boo ko waaye mu wuyoo sa sant dëgg yàlla mu ñëwee soxla na nga teral ko ak nga yër ko nag keroog bi Seydina Muhammad amee problème Aïcha te woo ko bàyyam mu àtte mu ñëw pes ko mu ne ko bu doon dóor dong maa la ko dàq waaye ba ma lay woo wax pour nga dóor ah ñëw pour nga waxtaan lu ñu defaroo moo tax yonent bi kooku mooy royukaay moo tax bind ko tubaay ni des progrès din porte infinie ont été accomplis par les réformes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni la seule réforme d'interdiction des meurtres des faits à leur naissance avait suffi pour assurer à Muhammad un nom inoubliable à l'histoire de son temps wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyin dhanbin qutilat neen Seydina Muhammad a tax kenn juratul doom gas ko suul Seydina Omar daan toog yàgg mu jooy moom yenn saa mu toog ba mu yàgg mu ree ñu ne ko Omar dañoo gisee yàgg saa nga toog jooy yenn saa nga ree mu ne waaw li tax ma toog ba mu yàgg ma jooy damaa mës a doom di suul booba dugg ci diine nee na ma teg ko ci suuf suñuy bët ñeent ma xool du bët yii xam ni samay bët may suul suuf si nee na ba bi suuf si ak si bakkan bi suuf ma gis ni suuf siy tëbee nee na geste boobu fu sama xel demee samay rongoñ day génn ñu ne ko waaye li ngay ree yenn saa yi mu ne damaa mosoon am yàlla joo xam ni maa ko defaroon ci fëriñ laa ko defaroon fëriñ ak mburu defal ko ay mbagg ak yëpp waaye bu ma xiifee damay dindi loxo ba poñ rek moo suurul dindi tànk bi bu jeexee bu subaa ma defaraat beneen yàlla mburu mun yàlla joo xam nag yaa koy defar ba pare poñsewaat ko nag moo tax kenn du yàlla war nañoo jàngalaat nit ñi tawxiid bu baax téere téere fiq yépp tawxiid da lay jàngal bu pare kenn mooy yàlla ba noppi te nit ñi dañu mel ne xamatuñu yàlla léegi wallahi al azim yàlla mi xëy suba may la nga noyyi may la nga lekk may la nga naan nit may la 1000 francs nga gërëmee ko bàyyi yàlla bi tax mu jox la ko te situation boo nekk mu neex nag yàlla xañ na ko nit teg ko sawet ngay xool ak boo mën a nekk nag moo tax ñun waruñoo fonto yàlla sant ñu julli juróom ba pare di ñu accompagner nag bañ nga fàtte ko rek mu ne noddukat bi bés bu nekk noddal leen juróom yoon nga fàttali leen may kan mënoon laa teg julli yoon lu àttan mu woyofalal la ko nga sañ a tëdd fanaane doo julli moo tax boo gisee mag ñi ñu leen di roy ci jaamu yàlla la ñu doon woo li àjjanay neex neex sëriñ mënu faa dugal nit jaamul yàlla la kenn mënu ko ma Muhammad ne ba ci ma mii ma jur su def defuloon lu ñeex yàlla safara la jëm yonent bi jibril iblis jibril dafa taxaw ci mbubb kaaba gi di jooy jooy yu mett yonent bi ñëw ni ko la mu ne ko damaa xam ne lu ne iblis defal na ko yàlla te tey taxul génne na ko këram may bañ nag loola dal ma moo tax may jooy pour bañ naa naaw bi téye ci kaaba gi moom it di jooy yàlla ni seen jooy sax leen ci ku lu naagu ci sama mbir man yàlla dinaa la yóbbu safara te duma la tàggu kenn feesul bëtam déedéet moo ko xamul rek koy fonto yëg nga ne boo amee doom tuddee ko yàlla day dee ci saasi sa jabar ëmb nii wasin nga ne tudde naa ko yàlla ci saasi lay faatu kum neex na essayé ko <laughs> ah allahu nga li ko ci nopp bi waaw ah, boo moytu foofu lay yam moo tax yàlla bëggul ko dugg ci kaadaram bi ñaar ñiy tukki kenn ki nañ jëm ci dëkk bala ñu may ñu reer ñu ñëw ni yaay kan man man la doomu yonante bi ñu di teral di ko may xaalis ke gis xaalis bari mu ne yonante bi yàlla ko na for ñu ko yow yaay kan mu ne man la doomu yàlla ñu ko ak xaaral yow xaaral tut ñu reer ba pare jël ay yat ne ko na ñam armée ki sa bàyyi ko rek muy sama maam <laughs> kii sama tànta sa bàyyi ko rek <laughs> non lañ koy doore ay yat bu mu sedd guuy mané ko ah, a yam ci yonante bi rek ndeysaan une الدين ولله وهلا وهلا عجب الدين ولله وهلا وهلا عجب ولله yàlla nañu yàlla defal sutura ñu ñëpp nañ delloowaat suñu bopp ci yàlla moom rek moo fi nekk bala nga koo xam yonent bi nee na dee leen ziyaara ji ay bàmmeel dee leen demi hôpital ndax boo demee ci bàmmeel gis ñi tëdd xam ni gënoo leen sa xel dina la yedd ba nga góorgóorluwaat ci yàlla boo demee hôpital gis ñi tëdd sa bëñ dong buy métti guddi gu doo nelaw fatt dong boo ko defoon a sa àdduna tukki nga bëgg a fontoo yàlla mi nga xam ni mbooloo may loolu lépp kon nag te àdduna bi jeex na ba noppi te nit ñaa ngi daw di njëkkant wërsëg bayra tiitar te bu yëpp boo paree ci biir bàmbel lay mujj say xaaj maa ngi ne wayoo ma tàdd xulu baytan laa anisa lay laysal mu jaawi wéra illa duuda faddakk ba ngay dugg bàmmeel la la fay wéetali du dara lu ay sax soo texewul yàlla def suuf naj naj la ba meew ma nga njëkkoon a nàmp di génn ci say bakkan kon nañu fonk julli fonk jaamu yàlla xam ni li des ci àdduna bareetul su ko defee nag eh, wax eh. nee na juróomi yëf mi ngi topp bis bu nekk muy malakul mawti mi ngi lay topp sa ruu la soxla te balaa laa bàyyi récupéré ko suuf si ñu lay suul mi ngi xaar saw yàpp te balaa bàyyi dina ko jël mu ni sax yi nga xam ne ñi ngi ci biir suuf ñi ngi xaar saw yàpp nee na ki ngay amal bor nee na mi ngi lay xaar nee ñi doon sa alal nag nee na ña lay xaar te juróom yooyu yëpp ñi ngi xaar li ñuy xaar daan ci jot kenn mënu koo moytu jërëjëf sëñ Habib moo tax loolu nag bu ci sa xel demee rek lépp loo def rek loolu jaamu yàlla yàq ko su ko defee nag eh, waxtu tay bi moo ñu mayul ñuy dem ba deux heures ndax une jot na te une heure du matin te ku ne xam na ne am na ñoo xam ne fu sore sore lañ jógee te mag ñi toogaay bu yàgg bi duñ ko mën waaye bu ñu fi yàlla bàyyee ba déwén dañuy teel a ñëw nag incha allah jotal leen nag commission culturel bu Tivaouane ndax tey ñi ngi war dem ba Jurbel waaye bi ma leen waxee waa jàmbalaay ñu ne ah jàmbalaay nag wax dëgg yàlla nag eh, sunu bàyyi àllin buñ mësaan di daje moom la ñuy déglu ba pare mu tànn kon nag ñëwal dem foofa ñu xool ko dem Jurbel ko defee tabaarakallaahu eh, bi hadi rasul nu nu wajjihul yàlla mooy li ñu doon waxtee waxtaan léegi rek li ñu fa waxtaan lépp génnul njubu Seydina Muhammad kon nag yàlla yàlla barkeel di ñaanal nag sunu jarbaat yi sunu rakk yi yàlla na yàlla kàttanal leen léegi la ko chef de quartier wax wala fi nee na gàcce ñett la gàcce ay bis gàcce ren ba déwoon ak gàcce giiru dund gàcce ay bis tabaski jot ñëpp tabaski tabaski woo di nga am gàcce ba bis bay dellu si gàcce réew mi den ba déew ñëpp bay bayoo ñu indi seeni ngooñ teg yow dinga nga am gàcce ba déewoon gàcce giir dund nag mooy mu jëpp mu réer am baay muy def lu baax jóge fa defoo lam doon def di nga am gàcce ba àdduna tukki kon nag yal na yàlla fa leen cat lañ leen di ñaanal ñu ñu neex a àndal di ñu baax man day wax dëgg yàlla suñuy xarit lañ lu ne la ñuy waxtaanee man ak ñoom kon nag yal na yàlla jàpp leen gërëm suñu yaay bu baax a baax gërëm ñi fi daj yëpp waxtu yi nag ndax yéene bi ma amoon tey ci waxtaan dama jaxasoon ndax xajul ci benn waxtu waaye dak yàlla danañu def ñu def à suivre incha kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di jéggulu ñëpp di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahi rahmaani rahim alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñun suñu wax du ci bari ndax dañ ñëwoon rek déglu gunge Sidi Ahmed Sarr ndax yàlla dafa def <clears throat> man ak moom ñoo bokk gimbeendoo ci sunu ëttu kër maam di soxna musafasi mudir, mang di sunu sunu kër sëriñ mudir maa ak moom mi bokk nañu nekk ay at ndax moom benn conseillère la am ci àddina mooy sama wéyjur bu jigéen lu muy def lu am solo te yitel ko ben conseil la deg lu muy sama way jur <clears throat> ndax man ak mom ñu bokku luga bu bëggon xam-xam lool sawar ci lool waane ci lool ni ñu serigne Abdoul Aziz daan wax al amin lima lima neex ci yeen da nga na waane ci xam-xam mu nekk luga jang fa mais xeb lam fa jang tax mu ñew Dakar ci école franco arabe bi nek canal 4 te sama wayjur serigne Moustapha Sy mudiir di difa di fa la motale ba am baccalauréat warona dem kuwait fenen. dem Arabie Saoudia mënoon dem fenen <coughs> mais mu delu Louga delu jang mag ba tay ña Al Azhar jangé Euh, xarawiyin jànge zaytuun yi bu ñu ñëwee dañuy toog moom mu leen di jàngal kon loolu day wane que da nga war a préserver seen identité préserver seen patrimoine ñi fi Sénégal am ci mag ñu baax bu ñu leen fi bàyyee di roy ñeneen dafa fekk ñu sawar Serigne Cheikh Tidiane si moo ñu ko waxoon kër jëmb te li wax ci yàlla

maarifa tarixa bi nga xamante ni nag moo ko incarné mooy tarixa Seyid Cheikh Ahmed Tidiane yi malheureusement wax naa ko barki démb ci kat miye bi li ma wax dafa rëy keroog waaye Pape Maodo daf ma woo Maodo si ni ma tu as raison quatre-vingt-dix-huit pour cent quatre-vingt-dix-huit la wax de pour cent ñi nek ci tariikha tariixa xamu ñu luy tariikha tijaan 98% ñi wer de tariikha cent xamu ñu kuy seyd Cheikh Ahmed Tijaan parfois daf may metti Seydi Cheikh Ahmed Tijaan ko laaj mun la mi ngi faas fa la teud damay gàttal parce que du waxtaanu loolu mais dama bëgg ni Ahmed sar wax nañu bàyyi xel yàlla dellu ci moom gëm yonent bi bëgg ko nonu lañ ko wara a ñambaase wàlle ak sayyidna Cheikh te boko maîtriser da ngay maîtriser ñaar ñé ndax mo leen donn khadmiya ak kadmiya fé dafa am grade bu ñuy wax khutbaniyatul uzma fi mu am grade bu ñuy wax xadmul maktum fé khutbaniyatul uzma te te xadmiya ab bureau la bureau nek bu Cheikh nekkon bo xamanteni mom kessé mo fa wara tok ku fa ñëw da ngay romb waliyu boo mën a doon ci aadama laa lox de parce que nit ñi xam-xam tarixa bi xam-xam nga koy déggee est-ce que tu sais que yonent balaa yàlla di la yónni cheikh moo doon sa patron waaw boo nekkee xutbu avant ngay nekk yonent xutbu ngay doon ba nekk gratu yonent mais moment bi ngay nekk xutbu cheikh mooy xutbul mooy xaatimul awliya yi te boo nekkee xut bu garaatu wëli yu ngay doon kon cheikh mooy sa patron mais boo duggee ci néegu yonent nag cheikh rocceeku nga ñëw nekk patron mais tam xarit la fa dugg incarné ko ndekete dañ koy préparé jox benn caq moo tax kat mi du titre da ngay dégg ñu naan ko grade du grade c'est un collier de diamant parce que jour kat dafay taw benn taw li may wax nii Sidi Ahmed Sarr waxtaan na ko ba tàyyi mais dafay leer xale yi xam tariixa bi ñu yor lan la ndox loo xamul danga koy fooye gis nga yàlla lu mu bind ci peer la ko bindee ba mu des boppam wax na ko léegi moom kese la bind ci cinq la singleton leneen lu ne ci peer la ko bind asamaan ak suuf la yàlla bindandoo la ci même tiers même tiers asamaan ak suuf guddee guddeeg bëccëg la yàlla bindandoo bi mu bindee leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fallait mu am face ak pile pour mu nek une réalité face bi moy nourou Muhammadiya benen face bi moy nourou Cheikh Ahmed Tijani motax bi nga xamante nak war nañ ko ko rangal mu tolloo 40 jours après tamxarit muy dix-huit safar

est-ce que xam nga naa Cheikh lu yàlla bind da cee am turandoo ni ma amee nit Cheikh Ahmed Tidiane yi nit noonu la ko amee ci jinne noonu la ko amee ci malaayika noonu la ko amee ci xayawaanaat ci jamaadaat mais am ko ci ay jën buy taw jënu Cheikh ñi tudd si Ahmed Tidiane yi ñooy ŋaang yàlla taw te jën bu ne benn toq nga am droit wan lu ko mooy da ngay toj boo amee ñaar bu la fekk see da ngay buñ ko wannee dañuy dem ca suufu géej fa lañ koy goxee mu nekk diamant yi nekk rubis yi nekk or sadaf mooy métal métal bi ñuy wax sadaf ca la ñuy doon ña am xam-xam moo tax Seydina Seyd Cheikh Ahmed si ca wa xasidaam bu rëy ba ba ko Seydina Cheikh Tingomee ni yóbbu na ma ba ca suufu géej di ma wan jamaa yeeg or yi di lasdaaf donc durra boobu kérok nak la la la la la Cheikh tok face damay damay résumé teud ni di waxtan bam julé jullee ba nopi le 22 juin jàpp leen baax li ma wax le 22 pardon juillet 1799 mu tok ci rawdu face sahaba yi wër ko mu mel ne dañoo roof sahaba yi jug leen te dem maanaam mu mi pardon ñuy jóg di dem di dem ba mu des Cheikh Mouhamadul Ghali toog tuuti rek Seydul wujudin ni asalaamaaleykum yonent bi seen naa Cheikh ni ko lu xew mu ni ko dafa am wëliyu bu mag bu ñuy ràngal tey garaatul al maktuum seen naa cheikh nako luy mag tuum non kookan la wala wala daf ni ko luy mag tuum mu ne ko mooy grade collier boo xam ne bu bu ko waaji rango may yamu am ku dul yàlla ak yonent bi man mii moom du ko xam même moom du xam cër ya ko yàlla di defal cheikh xol mi ngi xalaat yeneen naan ko waaw kooku mu war a doon mu ne ko yàlla ak yonent bi ñu concerté wu man ak moom ba pare yow la ñu ne nag fam la koy rànge ca xadara ba la arafa fa lañ war a dem léegi faas ak arafa munoo fa jógee ci soixante douze heures yegg wala un mois mais yonent bi dañoo lem yoon wi moo tax ba ma koy waxtaan am ku ni ma euh, bu ñu wax rek tijaan yi di ëppal kan moo mën a jóge fii dem talibe ci ñaari jéego xanaa baas bi buñ ko laloon sax doo ko mën a traversé ñaari géejo mën ko wax nga dëgg buñ ko lalee mais buñ ko lemee

li leen di dafa bari léegi te bobu bobu bobu guddi dafa nek guddi gu fondamental ci tarikha bi ndax moy fondement tarikha bi ci walu garaatu tarikha bi lutax ñu wax ni moy gën ci tarixa Seydina Cheikh di khatimul awliyaa yi la mu ñew Jibril ak ay mala lañ ko rangé

munu ko waa euh, chaise be nak munu ko chaise be chaise wurs bi seydul wujudi mo ci tok bi ci dess sa cheikh bi mo ci tok munu ko wa lu waral bis bi munu ko dañ koy rangal grade bo xamanteni mom rek ko nara am munu ko wa rang bi nak munu ko kele ngay gis moy jibril Mo and ak malaaka yi pour teeru seydina cheikh mu ko waaw ñi wër chaise yi nak mu ko ñaar ñele kele moy abou bakar kele moy umar ki moy ali ki moy usman mu ne ko waaw vingt vingt yee toog nag ak ñeent yi leen jiitu mu ne ko ñeent ñi kii mooy Aysa bnu Maryam kii mooy Muusa kii mooy Ibrahim kii mooy Nuux yeneen vingt yi leen tegu mooy vingt yi leen mottali ci vingt cinq yonent yu mag yi waa ñi seen gannaaw mu ne ko mooy cent vingt quatre mille yonent yàlla yónni ñooy ñëw pour sey dinaa Cheikh pour dugg ci tarixam Seydina Ali keroog woo na yonent bi ne ko man comprendre ma mu ne ko fii deret jeex na fi tey grade la te batine la cheikh fiñ ñu toll ni moy sa kilifa mais jibril bañu ñëwé ba pare waxul ni sayyidna cheikh salat ci salat sa salaatu uzma lati uzma lati bi jox ma ci sayyidna cheikh xoko cheikh amadou Tidiane Sy ah salaatata uzma lati ma ma baada ha lil jinsi wal min qurbaani سيدي شفت جنسي جبريل ني يوننتي بي يوننتي تالال لوخو نيو نيكو جوخ نيو سي صلاه بو ماك بي بو تيد بي كيروك ني دوك سي تاريخا بي دونك دو اي تياخان سيرين بابا كرسي دو تياخان تي اي واخ هم الكرام اصحاب الرسول واهل الضعف نيوم يو خطا طالب الشيخ يوي اهل الضعف سام بابا موكو فيريل مونيما bu ñu leen di fay seen benn pere salaatul fatiha lépp lu ñuy compter ba aadama nekk aadama ba yowmal xëyaam dañ koy multiplier par nombre boobu imagine toi lépp lu ñuy compter nombre da mbaxane ya ne ca aadama ba yowmal xëyaam dañ koy compter yu jox la ko ci pere salaatul fatiha bi nga wax montre yi nga am dàll yi kawas yi micro yi lu ñuy compter comptable bi mais kee ko bu coono donc dama doon gàttal jamono dana ñëw xëy ñu yaatal ko pourquoi ñu koy wax ñun ay professeur université lañ ci langue française man j'enseigne le droit à l'université de Dakar à l'université de Thiès mais héritage diiné bi ñu am nañ ko fonk xam kuy Seydil Hadj Malik xam kuy yonent bi xam kuy cheikh boo leen xamee doo leen boolee keneen man duma ma fanatique lu né dama koy mesurer tester ko xol xam kon loolu laa amoon ci lu may yaatal ngeen jéggal ma ci wax ji c'était décousu préparé wu ma ko mais daal Sidi Ahmed kontaan nañ encore jàngaat nañu lu bari li nga junj nag bari na lool waaye balaa mu doon gën a neex nag ñi fi toog ñëpp dégg arab ndax ci nga doon gën a toj waaye alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi lay ñaanal di la sago ndax sagu tarixa bi nga sagu kër gi nga sagu xadara bi nga du benn du ñaar yu ma toog ak sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mu ni di leen di encourager Ahmed Sarr ndax contane na ci mom serigne Mansour borom daara ji def nako wax ko jëmmal ko luga ma ngi Ya kon alhamdullah yalla bu la ciat jitu yalla nga eggal ni yon yen itam sen baye ñu boole ma ngi koy wax ci présence sama badjan soxna zainab Sering Alioune Sall mo ni ma ñi say rak lañu say jarbaaj lañ teyel ma len ñom itam ñi ngi def li len war duñu def dara barki ñi ngi and ci grande mosquée ba sëy Sidi Ahmada si bu Seydi Jamil di waxtan ci lama wax li mën na ko yëg ko te dina ñëw kon lool lañuy sam te insha allah day dox le Serigne Cheikh waxon en avant en avant lay doon kon Sidi Ahmed nga ñaanal leen ci sa barke mam yàlla defen loolu ñi ngi leen di ziaré ñep ñëpp aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu